jërëjëf mbokk internet yi bu na ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ki ma jàkkaarlool xam ngeen ko xam naa ko Cheikh Amadou Diop kokki ak ndaam waaye balaa muy nuyoo mbokk yi avant élection yi <laughs> ñëw na fee ca dakaar ñu am lu ñu fa waxante woon mu wax ko ca kaw tey buur géwél ñëw fii ci Touba ngir feddaliwaat loolu mu waxoon kokki buur a ngi lay nuyu di leen ziar di leen ndokkeel tey nag yaa ngi Touba de mais sëñ bi ni ngay waree maa lay <laughs> ziar bu baax di wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di sant mbokk yi nga xam ne ñoo ni topp ci site bi di Bprod Media di suñ site bopp di site Cheikh Mouhamadou Moustapha di sant it mbokk yi nga xam ne ñi ngi doon bàyyi xel ci élection yi di topp ay révélation yi nga xam ne ñu ngi ko doon def dañu la ñu waxoon rek suñu mbër moom buñ ko ngembee day daan waaye kenn du ko daan waaw te loolu itam nag jàpp naa ne ba nu yàlla defalee tawféex ñu dugg ca àgg nañ ci jàmm salaam te ñëpp gis nañ ne kanu jàppale woon taxawu ko suñ borom may na ko ndam mm-hmm. loolu itam nag du ci noonu waaye yàlla mooy dogal waaye mbir la moo xam ne dañ ko doon donnoo ci sunuy maam mm-hmm. ndax ñun fii la ko dale ci kajoor ak euh, njàmbur ak jolof ak siin buur buur bu fi faru rek sunu maam la far demoon naa bët kooku responsabilité yii mu jël man. ak engagement mu jël. waaw man xam nga man buur danaa yéex a daanu ci wax la mel ni mbir nga topp ko te doo gis na ma la ko waxee. la koy waral moo di mbir bu mu mënti doon bala ma koy wax danaa ko gëstu ndax euh, Basirou Diomaye xool naa mbiram xam ban biddiw la amee ban buruju la amee ban chiffre la jàpp nga xam ne tey boo ko doon xool dafay bokk ci xamlu. Hmm. waaw buruj ba maanaam bi xam lu la tey biddiw ba nga xam si ne moom la amee biddiwu marix lay doon hmm. taxawaayam nag dafay doon dafay tàmbalee ci benn te it moom wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg taxawaay bi mu am hmm. dafa doon koo xam ne si ne mën naa jiite réew mi waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko noonoo woon démb nan defaroo mooy waaw parce que am na foo xam ne si ne bu fa jàppee du gaaw a bàyyi te bu gisee ne lii dëgg la te muy dëgg goo xam ne gu mën a téye la du bàyyi te amu ca ndam comme ni yëf yi nii mu demee rek noonu lay demee waat mm. waaw te euh, am na ñu bëree bëri ñuy xalaat diggante ma Ousmane Sonko loola du mbir moo xam ne seen sax mu jaragun xalaat la nan bàyyi ba ca kanam. mais que du déedéet ndax oh, déedéet loola moom xam nga bu fekkente ne ay nit dangay xool ci seen saayir dama la wax ni du du baatin mais saayir la nit ki boo xoolee seen taxawaay. dina la wóor ndax ñii ay nit ñuy ay nit ñuy tàqalikoo lan wala ñu tàqalikoo mm. ndax euh, Ousmane Sonko yilif na Bassirou Diomaye ci ak ndawam mm-hmm. Bassirou def na ko muy kilifaam waaye gis naa ne bi mu demee ba ak kilifteef ga soppeeku ci ay taxawaay am na foo xam ne si ne sax euh, ki nga xam ne si ne mooy Ousmane Sonko dootu nangoo tee feeñ mm-hmm. tey nag lii mu defal Bassirou Diomaye keneen ku ko defoon ku dul moom fu mu taxaw nga taxaw fa tiitaroo ko. dëgg la waaw. dëgg te kenn gis ko mu tiitaroo ko. waaw. gisoo ko boobaak léegi rek maanaam biñ nee biñ nee wii président ak léegi kenn gisu gisu gisu gisu Ousmane ko taxaw Bassirou Diomaye taxaw. Mm. du image du photo du vidéo dégg nga kon euh, dafay am loo xam ni damay bëgg ñu bàyyi ci xel. yë waaw. ña ne dëgg la. la cay dooleeku it mooy. yëf yi ñu bëree bëri daanu nañ ci. ba ci sëriñ yu mag yi sax daanu nañ ci. mais est-ce que man xamoon naa ne moom mooy doon président parce que benn sarax moo te woon mu mu mu ñàkk ko nekk te samedi samedi laa wax gars yi ñu génn ko. samedi waaw ndax man biddoom dama ko doon topp sarax bu ma gis dama leen wax ne nañ génn sarax sàngam samedi lañu waroon di génn fukki béy mhm. génn ko ci biddu soxaal nga xam si ne moom nguuram day sax. waaw biddiw boobu tey jii biddiw soxal boo demoon tey ci ñi nga xam ne si ne ñooy waa ñooy def science ak suif yi lu ñu samp du ci daanu ci lañ ci lañ taxawal Coca Cola xam du xewi. waaw mais sa mii nag mbiram day tàmbalee ci benn di jëm kaw du wàcc. waaw. seet. waaw moom. boo mënul seet amoo moom dama ne la amul menn mbindaafan ci àdduna boo xam ne si ne dinaa la taxawal ci seet te gisuma loo xam ne si ne danga nga sa gémmiñ mm. yàlla mi ngi dim maanaam seet ak faj rab moom laa yemale su ma gisee seet ak nit ko am rab faw ala kulli alin la ma cay def moom su ma ko ca defee day féete boor. Mm. kon waaw rab ma waaw déedéet déedéet ñun moom ay rab ak yooyu moom suñu borom dafa dogal ci suñuy maam la ñun maanaam ñu tëb di ñaan. Touba gii nga dëkk sama baay bokk na fi ci ci ci ci ñi ci gën a ñi ci dàq turu yàlla. waaw waaw waaw koo xam ne si ne koo xam ne si ne bi mu ñëw Cheikh Mourou Moussa Mbacké dafa bind ab kaamilam indaale maanaam di di tërbe yow pare yor turu yàlla maanaam baab ijaab am rawaan te yàqlu ko dara ci digganteem ak Cheikh Mourou Moussa tey nag bu fekkente ne kooku mooy sa waajur yow boo yow nan nga man man buur yii kenn du ma ci dégg tappale yii man ab sëriñ laa doon ba ilaajal musamma soxlawuma lu tug sëriñ billaahi wallaahi wa taala ab sëriñ rek laa fas yéene doon képp koo xamante ne am nga aaja barkeb Cheikh Ahmadou Bamba soo ma ko waxee bu ma la fanaan la boo xëyee su ma la mm. barke sëñ ci ni may faja aaja mi ngi maanaam mi ngi mi ngi dépendre maanaam ci man ni ma ko yëge mm. léeg-léeg nga agsi fekk ma ci xaala boo xam si ne la may def moom su ma ko defee dama dama naan la waxtu sàngam ba luñ ci àgg mu sotti waaw te nag maanaam billaahi wallaahi wa taala xam naa junniy turu yàlla mm. junni xam nga ñu ne tudd yàlla bu ma la ko waxee naan ndax ndax 99 moo wàcc xam naa junni xam naa tur woo xam ne si lu ma bëgg nit bàyyi ko mu bàyyi ko naa tur woo xam ne nit ko lu mu xeex xeex xeex xeex bu yéene da ngay da ngay xëccoo ak nit ki sax ci wàllu société wala ngay xëccoo nit ci wàllu marché su ma la ca su su ma la ko dóorlee nga nga nga am ko. soo nekkoon ci entreprise nit ñëpp di la xeex su ma la taxawee liggéey li mel ni damaa la jëlal lii nga dem sangoo ko ci xeeru géej taxawal ci kaw rek nga sangoo ko mu laal la nga wax ma ko su ma liggéey li may liggéey maanaam foofu bu fekkee ne yaa fa gënoon a suufe yaa jëm kaw liggéeyal naa ko nit koo xam si ne bis ba mu demee maanaam kay njiit njiit nga xam si ne mooy sa personnel ba mu ko waxee da ko saaga te mu jul ñaan yàlla du lii. yi wax. déedéet déedéet damay faj ngóoram buur buur buur man damaa damaa rey sama bopp ci bi ma waree nekk ab sëriñ ma ñafe pour doon ko. Mm-hmm. lu nekk nag dañ naa ko ci. dem naa ba man turu yàlla yu ma njëkk liggéey mi basmala maanaam toroxal na ma ci du toroxal sax waaye teg na ma ay nattu ba maanaam cent francs sax mënu ma ko mënu am juróom benn weer barke Sëñ Tuubaa juróom ñetti weer toog naa ko yor menn mbubb mu bula la tax mu mu bu ma sama mag la ko nit mayoon mu yëkkatuwaat may may mayaan ma ko mm. dem naa ba dàll yi may sol dama koy find feere nangatuma gis sama menn mbokk du benn ñëpp dama leen daw waaw waaw téye sama kurus rek maanaam ñii naan daan na wutal liggéey li man li ma doon daw mooy li fi sama baay bàyyi ëllëg nit bàyyi ko feneen ñëw dugg fuuta doo ko fekk. loolu loolu moom bokk na ci sama tiitaange xam ne si ne moo tax ma reyante tey bii nga xam ne si ne yu suñu borom dogoon na ay nit sama baay daan leen ñaanal ñu doon ay kilifa yu mag dem ba yittewoo mbir mi ñëw suñ kër laajte ñun leen Ahmadou képp moo ko fiy def. Mm. ñooña itam ñëw toog maanaam mbir mu lu sama baay mosoon a séq ak ñoom rek bu ñu laalee boppam ma àggalee leen ko barke borom Touba ci tur yàlla ci xam-xam ci taxawaayu càngat ci xel nu joom ci lépp lu mënti doon ci taxawaayu nit koo xam si ne dafa taxaw am rab boo xam si ne daf koy yàqal tey dafay bari waaw buur gis naa ñoo xam ne si rab dafa tëdd ci seen wërsëg nga xam si ne dañuy daw ba sonn duñu am dara gis naa ko ñoo xam ne si ne maanaam rab dafa jël ngelaw lu bëri samp ko seen biddu wërsëg nga xam ne si ne lu ñu liggéey lay tasaaroo te loola seet rek moo la ko mën a may waaye boo seetee it waxantil ak nit ki buur amul benn benn client bu mën a taxaw ne sëñ Axma mii la ma séq ak moom leerul barkeb sëñ Mour Moussa du la ko wax waaw képp ku manti doon ci àdduna waaw ngi biir waaw billaahi laa wax wallaahi wallaahi waaw watallaahi waaw barke Serigne Mbacke Madina dëgg la yaakaar àdduna ak alaaxira nit jëlagul téléphone am ne ma li ma seqoon ak Amadou Diop kooki def dama ne la ba keroog ñuy wal buftu bi doo ko gis xam nga lan la man boo ma doon càmbar ci xeetu médecine wala docteur dama naan la dama naan la médecin laa am naa ay diplôme xam naa nu ñuy faje am naa matuwaay yi am naa fu may faje nii nga ñëwee Touba tey fekk fi xàmb yéeg yëpp tege soo demee Mbuur noonu ngay fekk xàmb yéeg yëpp tege ñaari ñaari jëm waay laa am Touba Mbuur Touba gii nga ma fekk nag fi la sama lépp ne fi sama yaay ne samay soxna file la ne fi la sama kër ne fi la béréb bee Mbuur nag képp koo xam si ne da nekk Dakar ak ñi xam ne dañuy dëgg bi bee bitim réew ñëw bëgg ma soxla ma bu ñëwee foofu la may fekk. ndax départ dakaar war a ñëw Touba dafa métti moo tax ma sàkk këru Mbour googee képp koo xam si ne am nga aajo te ma gis na war nga faa agsi mën na la ñëwal bu fekkente ne gis naa ne jërul ngay ñëwul foo mën a nekk ci àdduna bi dama la ko yónnee. dégg nga ba ci lii nga xam ne si ne mooy nag gi nga xam ne si ne mooy Daaru Xudoos tawfeex <laughs> kii mooy toj dëkk fi mu nii waaw. déggoo ma léegi la ah. ah, ah, ñu bari. du moom rek de. <laughs> waa jëmmi secretam nag gi nag laa la bëgg a wax. lii ni meewu koy. moo koy booleel. seeyal naan toogal vingt minutes mu raxas biir bi nga dem génn jël li sa yaram bu dee jigéen joo xam ne da ngaa nanguut am doom koo xam si ne da nga am ndoxu siti koo xam si ne da nga am hémorroïde boo xam si ne dafa sax ci sa yaram. koo xam ne si ne maanaam suñu borom dafa dogal nga am ay xeeti jàngoroy biir mu doon ngelawu saytaane wala ngelawu rab wala mu doon koo xam si ne dafa tële ci wàllu néeg wala nga am feebar boo xam si ne dafa nekk sa biir deret jëmm ji daf koy raxas bu mu sedd. mais kooku jëmm ji man barke Serigne Touba billaahi ñaar ah kay ah kay ah kay ah kay ñaar fukki junni. soo ko yoroon mën na maa teg sama garab gii. ki am jàngoro ji gën a foor ci jàngoro yi ma ma jox ko garab gi yow nga xool ki am jàngoro ji gën a foor nga jox ko sa garabu tubaab barke sëñ tubaab bu subaa bu subaa kii dem dox ci ay soxlaam. moo tax ma ni la du jëmmi nàkk waaw kon secret bi. secret la la. bisimilahi rahmaani rahim ak lan ko liggéeyee ci garab ya mu méngool ak lem. ak yoo xam ne si ne maanaam lépp lu fekk ci sa karaw kaw bopp karaw bopp bi ba sa sawewu tànk daf koy sekki comme ni ñu sekkee dëkk. mais Oh, bi ma yeewoo waaw kay. mais buur bi ma jëlee ndànk gi. waaw bi ma yeewoo bi ma yeewoo. dama oyof da nga ma sama yaram dafa tekki. ku mu manti doon oh, ku ku mu manti doon. boo ko jëlee bu fekk parce que leen maanaam tënku tënku nit nii rek la. fi kenn génn ay dàq. de non non na na eh, naa li ma <laughs> waaw jëmmi nakk gi. borom nàkk yi. <laughs> waaw waaw waaw nàkk gi. nakk gi ak siwo moo loolu moom ku ko fi génne ku fi génne doo fi génne loo xamante ne garab baa boog koo jox du gis dara. ndax man jël naa sëñ Fallou ñaan <laughs> waaw ay gi ak kenn du fi génne nakk gi moom barkeb Cheikh Ahmadou Bamba ku mu neex wooteel ma jox la. billahi wallahi wa taalaahi naa koo jox nit mu faj bopp mu mu mu aajoom faj ba pare mu soog maa fay. waaw barke Serigne billaahi wallaahi wa taala <laughs> dama koo xam di dama xam li ma yor damaa xam li ma yor. man nag ci nag gi laa waaw Sénégalais man mi ngi may seetaan. dëgg la. man xam naa loolu. waaye loo xam si ne bis nga def daanaka lu ma juróom-benn fukki nag. tey ji suma ma juum ñaara ci des. muy li ma li ma téye li ma téye sama loxo mooy des. <laughs> seize mille mille cinq cent rek laa ko joxe par benn. seize cent. demul ñaar fukki junni demul fanweeri junni. Eh, eh, eh, barke du ma ko yokk du ma ko yokk duma ko wàññi. déet duma ko yokk damaa bëgg ñëpp seen aajo faju. jàngoro ji muy faj. damaa bëgg ñëpp seen aajo faju. barke barke barke Sëñ Tuubaa seize mille cinq joxe piri boo may ñaane sax. billa non non déedéet damaa bëgg ñëpp seen aajo faju. seize <laughs> parce que sëñ Tuubaa noonu ñu. waaw déedéet li li li cosaan la li xam nga xam nga xam nga xam nga lu ko samay maam daan joxe. ñetti téeméer ak ñetti ñetti waaw du ko yokk du ko wàññi. <laughs> waaw maa ngi sant ñëpp te di rek waaw waaw waaw fii moom mooy mooy mooy Darou Khoudoss fii boo fa doo fi joomi doo fi jaaxle ñoo gën a bëgg ñoo gën a bëgg waaw bis boobu moom maa ngi koy maa ngi koy yëgal maa man sama jëm bopp maa ko war a yëgal <laughs> ndax sëñ Mbacke Madina moo jox sama baay wi du ma xuus sama baay nee na ma njabootu sëñ Mourou Moussa Mbacke li may bokk bokk ak Serigne Cheikh Gaïndé Fatma sëñ Mbacke Madina moo fi gënoon nekk sama xarit kon nag yow da ngaa ñëwaat doon sama cër dugg sama biir bis boobu bu neexee yàlla ñoo koy ànd waaye maa ngi soññi ñëpp mm. ñu waajal ko ca xaar yàlla. bisu sëñ Mbacke Madina dimanche jii nu jëm buur géwél di ko teewal te kooku ay mbiram moom du woyof ndax ndax ndax ndax woyofalu yëfi kenn te it nag képp kum mën a doon ci àdduna mu jëflante ak yow lebal nga ko ci boppam loo xam si ne bu doon xëy suba ba ngoon di la jëfa mun la koo fay ndax ñun man mii day musuma laa soxla ci benn waxatu ah, maanaam nga jafe ma wala wala li gaa yi def maa ngi ñëw te ñëwuma kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm di ñaanal suñu mbokki taal bi yëpp di ñaanal maanaam président Bassirou Diomaye Faye yàlla na ko suñu borom taxawu te yan bii mu taxaw yàlla defal ko taxaw ki nga xam si ne moom la moom moo gënoon na jege ci ñim doon sàkkul yëf yéen muy Amadou Ba yàlla na ko yàlla may tawfeex waa na ko yàlla may tawfeex waa ubbil ko ay bunt yoo xam ne si ne daanaka dana xaw a gën sax président de la de la ah, sunu jàmbaar ji nga xam ne moo fi nekkoon nit moom itam muy président ñu ngi koy ñaanal yàlla dama la waxoon rek dama ne woon Macky Sall du taqali ko nguur mm. moom maanaam démb lañ ko joxaan nguur démb la ko France yëkkatiwaat geneen nguur na ko boo jógee la dë ñëwal dugg fii loolu nag ñun ci ñu ko liggéey ñun ci lañ bokk ndax suñuy maam suñuy baay ñoo ko samp fii ci Touba fii ngeen ñëw na moom pàkk la boo xam si ne nekku na ku mu neex nga ñëw waaye ku fi ñëw sa aajo faju wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf